www.sangatv.com. ñuy présenté téléspectateurs yi découverte lay doon moom euh, ñi ko meññ ay ndaanaan lañu diggante El Hadj Faye Boubou Ngaare ak Samina El Hadj Ndiaga Mbaye euh, day tax ñu naan lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam mu ngi tudd ki ne El fay ki ne ñu ngi lay nuyu euh, gërëm la ci teewaay bi artiste nga yaa ngi ci bëgg a yàgg ndax ci nga juddu dinañu découvrir fii leeg ay minutes sa clip bu bees mais d'abord ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi asalaamaaleykum waa àddina asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu képp ku may seetaan di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di ci kontaan bu baax a baax ci invitation bi. Mhm. El Hadj Faye mooy sa papa. waaw mooy sama papa. artiste bu mag. Mhm. Ndiaga Mbaye mooy sa maam. waaw mooy sa maam ñoom ñaar ñoo tax nga dugg ci art bi wala dafa nekk talent bu nekk ci yow rek nga dugg ci noonu. waaw donn naa ko mu nekk ci ma nekk ci sama deret après ma jàng ko ndax nee nañ loo doon ne day dëgër mais nga jàng pour xam. ni nga mën a fi nga mën a dugg ci musique parce que musique yombul. mën na nekk ci yow mais il faut nga jàng ko. souvent soo amee maamu artiste wala papay artiste soo bëggee dugg ci art bi ñoom dañuy dañuy bañ souvent di di di la retenir ñoom naka la demee si sa famille. waa sama famille moom amul ci problème parce que dama judd ci famille ndaanaan comme ni ko Pape Cheikh mhm. dama judd fekk sama maam nekk ci sama mhm. papa nekk ci pour ma nekk ci du jafe. Mhm. dañ lay pousse pour nga dem mais duñ la ci gàllankoor. est-ce que début bi yomboon mais ñëpp ay ndaanaan bi yomboon na début bi ngay doog a demaat ne da nga bëgg a woy est-ce que yomboon na. déedéet kii bi du yomb début bi du yomb ndax ñi ma sekk. pour seen doom jug di way daf leen di jaaxal ndax ñoom dañoo doon ay ndaanaan yoo xam ne pour nga donn leen day day jafe de mm-hmm. day jafe ku mel ni Njaga Mbay mos fu mu wayee buñ dégg buñ seetaani sëtam uh-huh. dañ naan kii est-ce que dina fi def li fi maamam def wala uh-huh. léegi nag ñun dañuy jàng rek nekk ci yoon bi ñu diñu tàggat rek ñuy déglu mag ñi fi nekk mm-hmm. loolu est-ce que du la stressé tam bu fekkente ne tout le temps dañ di nga xalaat ne boo woyee tey dañ lay comparé ak sa maam wala ñu comparé ak sa papa waa dëgg la ñoom ak seeni jamono ñun ak suñuy jamono ndax ñoom yañ daan way ñun presque wayatuñ ko. dëgg la yow looy way. waaw man maa ngi ci traditionnel bi maa ngi ci lépp maa ngi ci acoustique bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ah mais c'est cool je pense que Exadex mën nañu ñu tegal ko téléspectateurs yi comme découverte la. voilà donc Nijaay Nijaay une très belle vidéo. ñu seetaan ko et ñu amoon temps téye ko fii mu woyal ñu et tout ça mais lii mooy wane ni am na talent parce que dégg nga timbre vocal bi dégg nga euh, façon bi muy woyee euh, mën na. Euh, loolu loolu mooy li nga wax daf ko doon déjà mais tey gën a solo xam na ko mooy li nga xamante ne artiste boo xamante ne da nga fas yéene doon daanaan. Mhm. loolu foog mu foog mu bokk say bagage moom mooy mhm. déjà nga xam sa jamono. Mhm. say jamono maam sa jamonoom la. mais moom mu xam jamonoom. mais boo koy xool fii da ngay xool d'habitude bu dee surtout daanaan la wala doomu daanaan ndaanaan da ngay jéem a way d'une manière extraordinaire mhm. mais laay la chanter juste loolu loolu li gën a jafe xam ne mën ngaa la yegg fee c'est l'expert quand même ku sopp exay dex sa loxo ca kaw il <laughs> a chanté juste ah la la la la la la la ah, plus de plus de décompte plus de chronomètre maintenant dañu continuer ak moom mu wax lu ko neex <laughs> ah wala boog c'est l'expert <laughs> soo bëgg nga defal ko The Voice mu eh. acapella la nga xool eh, eh, valide nga li nga dégg ci clip léegi dama bëgg nga gëmm nga déglu wala nga tourné voilà donc euh, wayal ma lu la neex alors ki ci biir mu ngi doon way di neex Mbay way na fi lu ne def sama baay dikk dëggal ko ay gaañi yeewu leen yeewu leen non oh, yeewu leen yeewu leen seetaan mag Pape fii ci yeewu leen Sénégal déglu leen ma ma way ma way da ngay tourner tu valides làkk damay damay trois cent. a une voix. Euh, buy bi ba pare da ngay bi. ci. Ah. Euh, voix bi voilà moderne bi ci euh, mélodie yi. lan mooy projet yi. waaw projet yi mooy dañoo génne single ñu doon ñu laaj clip. léegi clip bi génn na. Mhm. pour bégal nit ñi gis nga clip bi fi ñu ko defee génne ay fleur def ko ci tool pour bëgg nit ñi kontaan. Mhm. léegi comme que loolu génn nañ ci dañoo nekk ci projet tamit album. projet album il le faut il le faut il le faut yi jàpp ci bu baax. comme waaw il faut ci ngeen ciy jàppee wax dëgg yàlla ñëpp ma koy wax. na ma TFM li ci war lépp ni nga koy def bu baax baax. di gërëm ñu nekk ci sama ginnaaw tamit. Mhm. di ci jàpp te bëgguñu ma tudd leen benn yoon. di gërëm ñoom nday ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax ndax jàpp nañ ci tey di ma sol damaa dem démb wax ko ko rek mu jox ma ni ma demal nday aram waa mi noonu ak ñoom nday Fall général jigéenu Alioune Sall ay ñoom Papa Lamana depuis Argentine. ñoom tamit ñu may jàppale bu baax a baax a baax. ah dafa mbapat. mbapat na yàgg naa aw baayam. Mhm. te loolu defe naa ne Sénégalais yi war nañu ko bàyyi xel. dëgg la waaye neex na trop waaye boo jaaree ci aw. 11h juste. yëf yi foo ah, jaar mu doy. très bien mhm. donc projet yi album bokk na ci euh, ma fàttaliwaat leen ko ki ne El Hadj la tudd. Mhm. Euh, papaam ndaanaan la euh, Boubou Ngari xam ngeen ko. Samina xam ngeen ko. n Mbaye kenn xamante ndaanaan yu musa doon ci réew mi mooy maamam euh, donc ñu ngi lay euh, souhaiter bonne chance ba pare suñu jarbaat la mhm. ah yaa ngi euh, di dem di tëgg ay programme waaw doon naa tëgg gore ak Robert Laut ah. Robert Laotoa moom laa daan joué siège bi rek. ah grand artiste. man dama daan xaaral ni këram. Mhm, ñuy def foofu acoustique waaw borom soxna su baax soxnaam su baax su mën a jox lu baax. Ah, ah, ah, dafa baax. a baax jabaram dafa baax sama xarit la woon. Mhm, mhm, jabaram dafa baax. moom laa daan joué siège bi rek. waaye mm. instant bi dañoo arrêté dañuy lijjanti yeneen boîte yoo xam ne dinañ ko mën di joué incha allah. voilà voilà. en attendant bi. ñu ngi ci bu baax daal di liggéey. incha mm. saa yooyu tëgg rek ñun boo ñu ko waxee dinañu ko annoncé téléspectateurs yi Robert Lawood jabaram mooy Nina Penda Faye bu Leewtoo TV voilà Nina donc Nina ñoo nekk doon nostalgie mag moom donc euh, muy suma xarit suma collègue ñu bu baax baax dal elle est très adorable elle est très adorable Nina d'ailleurs ñu ngi koy fóon et puis di nuyu tamit Robert Lawood mi nga xamee ni jàppale na la donc ki euh, ne El Hadj bonne ci li nga xamante ni euh, moo ci des keroog rek maa ngi dégg maa Sud FM Tata Ndeye sama yaay mu ngi annoncé ni dina la invité dimanche prochain ci émission bu mag boobule muy amal ci rajo boobule donc tata euh, ñu ngi koy euh, nuyu ñu dénk ko suñu papa euh, Alaaji Boukounta Pape Ngagne itam fonk la lool. Mhm. moom it mu ngi insister pour ñu jàpp ci liggéey bi à propos de Pape Ngagne xam nga tey ci guddi Faram Facce mooy jotaay bi gën a mag ci wàllu politique ci Sénégal regardez affiche baa ngi noonu donc dina recevoir ay kàngam yoo xam ni dañu leen ràññee bu baax ci wàllu politique ku ne mhm. xam ne ni fi mu tollu tembe actualité politique présidentielle 2019 procès Khalifa Babacar Sall li nga xam ne ni moo xewoon euh, Ziguinchor ak yeneen i ponk yoo xamante ni euh, Pape Ngagne dina ko waxtaanee ak ay invité am yéen a ngi gis noonu président Abdou Mbow euh, gis itam ki nga xam ne ni mooy Bara Gaye ak euh, Nafi Diallo ak euh, ñoom euh, Pape Oumar Ndong Ndong je pense que c'est ça donc ñoom ñooy nekk mooy. mooy ministre de la jeunesse ak Nafi Diallo j'ai vu que c'est ay jeunes la invité. ay jeunes rek la invité donc ñoom ñooy nekk invité Faram Facce tey ci guddi ce sera à partir de vingt et une heure trente donc mën ngeen réagir ci suñu ay compte ci réseaux sociaux yi. à propos de ndaanaan yi Fatou Thiam Samb itam euh, yéen a ngi koy fàttaliku tey la def at ci suuf euh, xam naa ëllëg euh, ci la ñu koy fàttaliku ak El Hadj Oman Garmi ndax Garmi ku fonk ndaanaan yi la moom laa tuddee gardien du temple suba dina gën a yaatal ci ndaanaan bi la nga xamee ni tey ñu ngi koy fàttaliku maam la ci ñun pour ñu ko xamul di Anta Ndiaye bi ami kolle way ci compilation boo xamante ni Youssou Ndour moo ko defoon boole ci sa papa doomu Ndiaga mbay boobule ak Abou Thioubaloog ñoom seen woy bi ami comprendre euh, Sidi Anta Ndiaye Sidi Anta Ndiaye Fatou Thiam Samb mi moo ko woyoon à l'époque euh, tey bu euh, naan Viviane mu ngi dëkkoon Gibraltar effectivement suñu maam la woon suñu xarit la woy na fi lu ne elle a beaucoup fait ci wàllu aada ak cosaan donc tey ñu ngi koy ñaanal xam naa boo demee këram fekk ay mbokkam ñu ngi wàcce kaamil ak ñoom seen donc tey ji la def at ci biir suuf ki tax ñu xam ko tata Ndeye la encore ma wax ko moo ñu jox information boobule woy bii nii la ko woyee woon mën nañ cee déglu tuuti ajot Fatou Thiam Samb donc xam naa ni suba dinañ ci ñëwaat ak El Hadj Oumar Mbaye Garmi tey jii euh, la anniversaire u génn ko àddinam def na at ci biir suuf moom euh, sunu maam jooju di ajotu Fatou Thiam Samb